tay dañ fi dajé fi jigen Ziguinchor pour def li nga xamanteni moy partager liguey bi nga xamanteni observatoire bi liggéeyoon na ko résultat yoy mom lañ bëgg saytu waxtané ko buñu paré paree nak ñu projeté wu né liñ liñ tënk fi ni tay fan lañ koy yobbu d'abord il faut ñu observatoire moy lan parce que nit boy wax ci dara il faut la ngay wax nga xam lan la observatoire dafa nek ben xarala boo xamante ni day permettre nit ñi di liggéey ci biir collectivité ci gox goxaat ñu mëna jël ay xibaar jël ay information di ko fa yóbbu par exemple buñ ñu Casamance information yi ñu soxla pour xam ci Casamance mooy Casamance ñaata nit moo fa dëkk Casamance ñaata pont la am Casamance lan lañ fay bay Casamance boo fa bayee gerte est-ce dana dox est-ce que boo fa bayee ceeb dana dox est-ce que boo fa fee nangam nangam nangam investisseurs yi ñoom ñooy ñëw jël seen alal def ko ci collectivité locale yi maire bi wala président conseil département bëgg na léeg-léeg am programme mais programme pour mu am ko il faut mu xam li muy liggéey. nan la toll état day indi ay fonds de transfert heure bu nekk mais fonds de transfert yooyu noonu il faut ñu xam ban impact la am gouverneur bi nga xam moo nekk tey ci bopp région bi tey léeg-léeg am ay conférences territoriaux conférences territoriaux daf ñuy permettre tey ñu mën a am ay éléments dugal ko ci biir observatoire bi te dana nekk ndimbal bu mag a mag a mag ci population yi te ñu war a xam ne tey adduna bi ni mu naan doxee fii ak téeméeri at ci ginnaaw melatul noonu tey lépp looy bëgg a def il faut nga xalaat ko. pour nga xalaat ko il faut nga am ay jumtukaay yu la mën a permettre nga xool ko ràññee ko xàmmee ko ne lii moo ko defee dana ma amal njëriñ mais aussi daf ñuy dimbale ñuy mën di anticiper ak di planifier loolu mooy planification doo toog ba këtti ne jonn mbir ñëw daal sa kaw nga door a jóg di def déedéet ñu ngi jóge ci jamono boo xam ay accident yu dul jeex na fi lu ko lu ko indi dañuy toog di xaar mbir daal suñu kaw ñu door a jóg ñun nag dañ ne déedéet président loolu la ñu sant mooy planifier leen les les information yu ñu pas permettre ngeen nous ne jigéen nangami nangami nangami population voyager collectivités locales aussi c'est un jafé yi la dañu ñun maire yi conseil départemental, yi état di jox yi jox gën ko faire appui budgétaire wax souvent état na appui budgétaire mais pour ñu appui budgétaire nous faire des maire n'est ay responsable dañu bonne gouvernance jox ñu nous benn ñaareel bi aussi danañ gën a mën a wane suñu bopp parce que observatoire bi day nekk vitrine day nekk seetu day nekk fenêtre boo xam boo ko ubbee da nga seen carte d'identité collectivité locale bi da nga koy seen da nga xam ni dëkk bi nii la mel lii la fa a def lii moo fa am lii moo fa manqué